بسم الله يكفيني أدار يا الله صلي بقاء بفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم أمان منتجيا فوزي بما ستوسي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أرجو برحمتي ألا ألاقي الدر منك يا الله عذاب الملاسي أرجو برامتي ألا أولا يدر أن يحيى الله مليك يميني وقل بزال يا مليك بلا إساء بالبيو جنك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waa daayratu muxaddimatul xidma ci njiitu sëriñ Afia Buso ñun njabootuk soxna jumaa Sëy di njabootuk sëñ ibraahima Sëy ñoo ñëwoon fii tey ci jumaa ji ji nga xam ne moom la sëñ Ibrahima Sëy dëppe woon soxna jumaa di sunu maam yàlla dogal muy ñu dénkoon ko Cheikh Mahamadou Fadel mu am ci njaboot Cheikh Mahamadou Mourtada ak soxna maam Faati ak Cheikh Mamadou Yaddaali njaboot googu itam ñoo jóg ànd ak mbooleem njabootu sëñ Ibrahima Sey e, di liggéey liggéey bii nga xam ne soxna jumaa moo ko tàmbali woon ci nekkam ba at mu jot ñu def ko ak léegi mu doon ñetteelu at bi ñu fas yéene ñëw indi sunu liggéey ngir terale ko gani jumaa ji ci weeru koor ñu jàpp ko ci fukki fan ci weeru koor yi kon loolu am nañ ci ndigal ci sunuy kilifa Cheikh Mouhamadul Mourtada ak ay rakam ak mbooleem njabootu sëñ Ibrahima Sëy li ko dalee ci sëriñ Sooroy Sooror Sëy mi ko fi nekkal ak soxna Malaktu bi fadlillaahi ñu ñaan sunu borom yàggal leen te wéral leen. li li tax rek ñu jóg mooy dañoo gis ne kenn ku ne kañ la tuddee da ko fonk te ñu gis ne sëñ Ibrahima Sëy daa tuddee soxna jumaa ji soxna jumaa kon su fi nekkoon kon dina fonk kilifaam fonk. turandoom looloo waral ñu jóg ànd ak suñu mbokk yëpp ak mbooleem njabootu Cheikh Mamadou Fadel nag bàyyiwuñu kenn loola suñ ci tuddee Serigne Modou Moustapha moom Cheikh Mamadou Mourtada ak soxna Juma mi nga xam ne ñoo nekk ci bopp kër Serigne Mourtada tudd soxna Astugaawa Ndiaye ak Serigne Bamba Ndiaye mi nekk ci njabootu soxna maam Fati tudd falli lu Mbacké ak soxna maam Mbar ak seeni rakk di njabootu Cheikh Mamadou Yaddaale ak mbooleem ko koo xam ne bokk na ci sëñ Ibrahima Seye ñu feeñal rek sunu liggéey tey ñaan sëriñ bi ñaanal ñu ndax lii dañ koy jébbal sëriñ mun Mountakha tey ñaan suñu borom yàggal ko te wéral ko ba yéene yim am yëpp suñu borom yàggaleel ko ko euh, ñu jàppale ko ko nag ci liggéey bi ndax gis nañ seen liggéey gis nañ coono yi looye dañ ci dawal suñu yéene rek moo tax ñu indi jëf ji ngir jébbal leen ko ngir ngeen defal ñu ko ci liggéey bi ñu ñaan yàgg yi suñu borom yàgg leen fee fekk te lépp luñ ci liggéey rek suñu borom mi nga xam ne moom mooy def ak di dindi ci barkeb ki nga xam ne mooy borom liggéey liggéey bi di Cheikhul Khadim suñu borom nangul ñu ko kon sunu xol sedd na bu baax sunum xel itam dal na ndax liggéey gën te mën a kawe liggéey bi kon ñi ngi sant sëñ Ibrahima Seye mi nga xam ne nag daa jëloon lépp dëppee ko jumaa ji ndax soo tuddee soxna jumaa doyoon na sëkk waaye da ca toftal sooroor bi toftal ci xuba bi toftal ci bayaxtu taxta sajar tax ci toftal ci garab gi nga xam ne mooy bépp te sëñ Tuubaa nekk fa tey jii kon loolu rek dafa doyoon waaye mu tuddal eh, tudd aynu rahmati ba tuddee xasida yëpp di xat faka kabla di ibnam ne abdallahi di ahmadu muxniyan di eh, bayit yi nga xam ne moo nekk ci mawaahibu naafix di xat faka kabla ak eh, jannatul haadi tudde midaadi ak ahbabtu rabbal alamin dégg yooyu muy dégg ba si dégg ne sëñ bi am na ba am na baafale ak galwaa ñuy ay cheikh mm-hmm. kon kooku dafa jeexoon takk ci Serigne Touba looloo waral ñun tamit ak rawdatu bi nga xam ne moom lañ doon wax barak bi mm-hmm. nga xam ne fi lañ ci sëriñ bi kon loolu euh, day jëf yoo xam ne ñun daal li nga xam ne moom mooy sunu ndono mooy liggéeyal Sëriñ looloo waral ñuy jël liggéey bii di leen ko jébbal bëgg lépp loo xam ne seen yitte la ngeen ñaanoon ñu itam ñun kenn bañ ñu ci mën kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di santaale itam mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo jógee Ndakaaru te soxna Khady Diouf jiite ko ndax ñoom tamit dañoo fekk si ci liggéey bi ndax ay sëti soxna jumaa lañ kon looloo itam ñoom seen doole nekk na ci ak mbooleem fu njaboot nekk rek njaboot kilifa yooyee nekk fa seen liggéey tàbbal nañ ko ci liggéey bi suñu xel dal na suñu xol sedd na ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàgg leen fee fekk ñu yàgg ñu yàgg indi liggéey bi te li ju ñëw rek daq bii ñu ngi jégalu ci kaddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi ak Cheikh Mouhamadul Mountakha ayyadahu llahu wa nasarahu di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér di nuyu mboolem ñi nga xam ne mooy daayiratu xidma bi nga xam ne mm, sëriñ Abdou ñu ngi nii feggoo ak ñun euh, nekk ci bopp liggéey bi ci ñi nga xam ne ñoo fi teew ñu leen di xamal ne comme ni ko sëñ Moustapha waxee rek. liggéey baa ngi nii ñu ànd ak ñi ñu ko war a àndal ñëpp ñëw ngir jébbal leen ko ngir xam ne fii ñu ñëw suñu suñu suñu barab la. ndax euh, ñi nga xam ne ñooñu meññ ku nekk xam nañ ne amoon nañ fi cër bu cër bu kawe kawe kawe te ku nekk xam ne xalaax bi nga xam ne euh, sëñ Ibrahima Seye mi war lépp amoon na ko ak Cheikhul Khadim ba tax na li sëñ Abdoul Ahad doon wax rek doon wax diggante sëriñ bi ak yonent bi. di wax ne koo xam ne doom doom joo jur tuddee ko ko rek kooku wane na ne am nga ak cofeel ci moom. moom it noonu la mel ci sëñ Ibrahima Sène noonu la mel ci digganteem ak sëñ Touba lépp lu mu am rek tudde na ko jumtuwaayu sëñ Touba yi ba ci li nga xam ne sax amoon na yéene te àggugu ci woon. te te te bu yéenee motoon it mbooleem jumtuwaayu sëñ Touba yëpp dana ko tuddee ci biir ak njabootam ndax tuddewul menn mbokkam doom loolu nag day wane ne rek xër gim xër ci sëñ tànk yooyee nag moom lañ ñëw di ko dox di ko xeeñ si te lépp mu euh, jaarale ko ci soxna Juma euh, di ñaanal suñu kilifa yooyu muy Cheikh Mahamadul Mourtada ak mboolem ay rakkam yëpp suñu borom bàyyi leen fi ñu yàgg fi loolu te ànd ak wér di leen wax ne daal liggéey bi daal a ngi nii di di leen ñaanal yéen it ñu yàgg fee ñëw fekk leen fi di sàkku ci yéen it ngeen ñaanal ñu ba nga xam ne suñu asaka yéene daal ci liggéey bi ëpp na lii waaye nag mbir mu nekk da nga koy tàmbali di def ndànk-ndànk rek ndax lu baax mënees na koo tàmbali mu mu mu xaw a nuru lu lu waaye waaye li nekk ci xol yi yàlla daf koy xam bu ko defee nag yéen a jéeg yëpp mën naa dem ba suñ borom ñu fi dogal ñu fiy wàcce ay camion ci loo xam danañ dem ba Touba yëpp danañ ci xaj kon ñu ngi koy sàkku ci yéen di leen ñaanal yéen it liggéey bi nga xam ne yéen a ko liggéeyal sëñ Touba yàlla bu leen ci dara gàllankoor ngeen matal ko ci ni ko sëriñ bi bëggee te it yéen a ngi ci yoon wi waaye nag waaw góor day yokk ak ak ak doxin rek loolu lañ ci jublu waaye xam nañ ne yéen a ngi ci ñu ngi ànd ak mbégte mu yaatu daal di sant tey gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. kilifa yu tàddi ñu ngi leen di nuyu bu baax di amaan di leen dalalaat tey jii ci fukki fan ci weeru koor di alxames dëppoo atum 1445 ci gàddaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam tombeek 2024 muy njabootu sunu maam Serigne Ibrahima Sëy Euh, di jëf joo xam ne jëf ju rëy la ju ñu yàgg a jëf jëfaat ko tey jii jëfal ko nag seen maam ju tedd ji nga xam ne tawfiq la suñu borom la waaye tawfiq Serigne Touba la ndax kenn mës a gis turandoo wu mag aw turandoom waaye moom nag suñu borom defal na ko mu tuddee doom koo xam ne moo ko mag benn yoon lañ ko mës a dégg lañ ko mës dégg te ci yoonu murid lañ ko dégg woon mooy ne wax nañu ne bi sëriñ bi di dem ci géej gi bokk na ci lim batale woon mooy Cheikh Mouhamadul Basir mii bu gënee àdduna di góor nañ ko tuddee Mouhamadul Basir. bu gënee ji eh, àdduna di jigéen nañ ko tuddee Khadija. yàlla def Cheikh Ibrahima am gan ci diggante bi laaj kum njëkk a lu wax ñu ne ko nii la wax mu ne kum njëkk wax ñu ne góor la njëkk wax mu ne kon tuddee ko Cheikh Mouhamadul Basir. foofu lañ mës a déggee turandoo mag aw turandoom. beneen biñ ci déggaat mooy bii ndax bi ndigal li ndigal li day mën naa mag turandoom moom waaye jëmm ji nag doomi turandoom a ko mag ndax jumaa ji yaakaar naa bi muy sotti bañ di ko ubbi 1963 yaakaar naa fekk na njabootu turandoo yëpp feeñ nañ moom. kon loolu kiimaan la koo xam ne dañoo dëkk ak moom dund ko miin ko waaye kiimaan gën koo rëy kiimaan gën rëy loo nga tudde loo xam ne jamono ja koy tuddee ña dajawoon ak moom te yor xeli doomu aadama kese kese kese jàppoon nañ ne mun a taxaw. ndax condition yee ko war a mën a tax a taxaw dara euh, dajawu ci woon waaye sun borom xamal la ne lii kat bëgg sëñ Tuubaa ndigalul sëriñ Tuubaa te sëñ Cheikh Mamadou Fadil mi waxoon na ne sëñ Tuubaa ba mu leen ba mu demee ndok nekk fa ab diir doon ci moom daf koo wax ne ko na ñëw ba mu ñëwee mu ne ko danga maa yàgg sàkku ne danga maa bëgg a liggéey boobu nag doonuma ci dara yéen ñi itam doonu leen ci dara liggéey suñu boroma te sotti day sotti coleet dara mënu ko tee sotti ku ñëw na la ca fekk ku dem na la ca bàyyi liggéey bi ba nga doon sàkk mu nga noonee loolee nag xëy na ña ko xamoon booba ñu néew la moom suñ suñ fàllu yàlla def weexal na ko mu xam ko ndax sëñ bi ko waxal boppam waaye sëñ ba mu leen woowee sant leen ko itam daf leen waxoon ne leen isnun min rabbil xayril mursalin lii ndigal la lu bàyyi ko ci yàlla jaar ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw ci man su ko defee dana am bu ngeen ko defee dana am dégg nañ ci làmmiñu Cheikh Mouhamadou moo xam ne sëñ bi waxoon na ci ba wan ko ko ba mu gis ko malaayka yi dikkal nañ ko bëgg ko liggéeyal hmm. mu ne leen jërëjëf waaye dama am njaboot goo xam ne damaa bëgg ñu jariñu ci jinne yi ñëw sàkku ci moom ngir liggéeyal ko mu ne leen jërëjëf waaye dama bëgg dama am njaboot te bëgg ñu jariñu ci loolee nag fàggul nu nun ñii tey jii sunu texek àdduna ak sunu texek àllaaxira rek moo taxoon mu di ko def ndax booba ñaan na boromam ca ba muy sanc Tuubaa ba noppi te ñaan nga sun borom nangu na ko ba noppi wax fir li man banaw binaa ahal rafia wax fir a man amarahum bihi jamia wali jamia man aanahum ala binaa ahal lazi bi fadlika atala ñaan na ko ba sun borom nangu na ko ba noppi xufraan googu nga xam ne moom la doon ñaan nag te muy njëggal loolu moom la yéene woon taalibe yëpp ñu xam ne nag képp koo xam ne sun borom dogal na nga am maam ju ci masa laal dugg nga ci njëggal loolee waaye nag des na leneen maam dana la faggul barke nga ñëw dundee barke ba fàtte koo dundal loolu nag moo leen dalut mooy seen maam faggul na leen barke ndax bëgginu sëñ Tuubaa bëgg ak bëgg mooy li am solo te mooy li mën a jariñ waaye bëggiin itam dafa wute xelum bëggiin it wute maanaam li waay bëgg te dofu ca loola bëgg des na waaye nag façon dof yi nii dafa wute am na ñoo xam ne ñoo bëgg sëñ Tuubaa ba ay kuy seen doom du génn turi doomi sëñ am ñoo xam ne dañoo bëgg sëñ Tuubaa ba seen i dëkk du génn turi dëkk sëñ waaye nag li li nga xam ne moo raar te jafe te kenn gisu ko fenn mooy bëgg Sëriñ Tuubaa ba nga xam ne symbole yi Sëriñ Tuubaa yi ngay tuddee yow tuddee woo doomam tuddee woo leen waaye symbole yi nga tuddee yi xam ne Sëriñ Tuubaa moo leen jëmmal te foo leen tuddee seen xelu ñëpp dem ci Sëriñ Tuubaa mm. kooku nag maam jooju nag la leen suñu borom bu mooy muy sëñ Ibrahima sey te suñu borom defal ko ci lu jafe nag wax naa ko léegi ci tàmbali mooy tuddee loo xam ne taxawagut kenn xamu ko dana taxaw wala du taxaw suñu borom may la kas bu toll ni nga mën koo tuddee xam ne dana taxaw ba lëng nga tuddee ko doom doom jooje itam suñu borom boolewaat ko ci biir sëñ Tuubaa ba mu ba ba mu demee nii mu demee tey jii Cheikh Mouhamadul Mourtada ak Cheikh Mouhamadul Yadaar yi ak soxna Maam Fati ñooñu ñëpp meññatub liggéey boobee lañu te ñooñu ñëpp nag yàlla dogal na ñii fi nekk di seenu njaboot kon sant yàlla rek moo ci war liggéey bi ngeen liggéey liggéey nag liggéey soxna jumaa la Euh, les sëñ Moussa Bassir waxoon bi muy defar euh, jàngkaayu Porokhane bi ne soxna Jaara bu fekkonte ne mi ngi dund danañ ko jox ay gone mu yar leen gone yooyu mu waroon yar dana leen jàngal kon noonee mu leen waroon a jàngale la ñuy wut daara ñu leen jàngale waaye soxna si itam jumaa ji su fekkonte ne jëmm la joo xam ne nekk na nit ñañ koy tuddee dañ ko koy jox bu ñu leen ko joxee itam dañ koy liggéeyal nañ ko war a liggéeyale mu war leen mu war leen a tàggat war leen a tarbiya war leen a tarxiya loola bi mu nekkee symbole bii mu nekk ci yoonu murit it kañ ko tuddee jàppul ni moom dafa war a nekk ab tabax lañ ma tuddee du ma def la ma war a dox sama diggante ak sama bàjjan mm. waaye daf ko tàmbali ba noppi joxoñ ko njaboot gi ne leen mu noonu xamal leen it mel na it da leen a xamal la nekk ci biir ci njariñ mm. lépp ñoom it do jàppewuñ ko rek waxi maam ak sëtam ah soxna si day mag waaye xam nga ne fee nangam nangam waaye yéen ñëpp da ngeen cee fas seen jom ba at mu ne lu ngeen ci def bu dewee ne ngeen def ci lu ko ëpp Cheikh Abdoul Ahad daan wax nag ne sëñ Tuubaa laa doon liggéeyal ba samay morom raw ma nopp mësu koo dégg bët mësu koo gis waaye nopp du ko dégg mukk it bët du ko gis mukk du ko du ko gis mukk kon na ngeen yëg ne liggéey bii ngeen liggéeyal sëriñ Tuubaa am na loo xam ne moom fàggatee fa la suñu borom a ko fàggul mooy ngeen bokk ci njabootu sëriñ Tuubaa waaye liggéeyal sëriñ a fàggul seen bopp ci lu mel nii ko mënee ndokk nag ba ngeen koy liggéeyale fii nga xam ne lim fi wax waxu ko fenn lim ci waxit waxu ko kenn suñu borom it defal leen ci cër bu toll ne seen maam la njëkk am ci aw beneen turandoo bu ngeen gis ginnaawam la waaye moom la njëkk am ci aw turandoo loolu nag euh, war na war na leen a jaaj waaye jaaj na leen war na leen dolli fit ci nangoo liggéeyal Sëñ Tuubaa waaye dolli na leen fit ci nangoo liggéeyal Sëñ Tuubaa war leen dolli ci njàmbaar waaye dolli na leen fit ci ak njàmbaar ndax wax naa ko léegi ci tàmbali bi ne bi ko sëriñ bi santaane mel na xelum doomu aadama mu jàpp ne war naa mën a am amuloon bi ko Cheikh Mouhamadul Moussa de sa fondement mu toll nii mu toll it kenn koo xam ne ab Sénégal ab africain nga bu jàppoon ne Afrique warees na fa mën a tabax tabax bu toll nii amul woon bi muy egg itam dégg ngeen fii suñu fa la ne mooy bi gën a màgg gën a gën a taaru ci gox bii di Afrique loolu dañul ba léegi nag mooy wane ne noonu mbir te itam dafa waxoon ne seen jumaa nga noonu ba fu mu mm, seen yaxub jumaa nga noonu ba fu mu kon fu ne war na faa àgg fu mu àgg tey waxoon na ko dafa waxoon sëñ bi ne ko dañoo toll fii toll fa ak yow waaye buñ ko weesoo ndax loo jërut amut te loonu jëralut amut loolu nag mooy la nekk ba léegi kon nag su ngeen defee nii day delluwaat rek ci pastef yooyu nga xam ne moom la seen maam yooyu amoon di seen ñaari maam yooyu nga xam ne moo leen seq la des nag lii moom tegu leen ko ci loxoy kenn ci loxoy Sëñ Tuubaa ngeen ko teg Sëñ Tuubaa koy nangul boppam moo leen di fayal boppam liñ leen di ñaanal rek mooy ngeen yàgg ngeen yàgg koo man te yàgg koo jëf te yàgg nu fee fekk te yàlla yàggal fi nag sunu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk sunu kanam mu Cheikh Mouhamadul Mourtada ak soxna maam Fati soxna maam Fati sax laa waroon jiital ndax mooy sama maam <laughs> ak ak ak Cheikh Mouhamadul Yadaali sunu borom may leen ñu gudd fan lool te wér ndax ñoom it gis nañu Pastef bii nekk ci bii ngeen nekk nii gis nañ ci ñoom Pastef bu ko raw fuuf sax bu ko raw fuuf sax seen seen yitte ci jumaa ji ak seen taxawaay ci jumaa ji ak seen taxawaay ci ñun ñi ñëpp yéesul fenn bu taxawaay di egg rek egg na fa kon nag yal na leen fi suñu borom gën a yàggal te dolli xéewal yi dolli barke bi lii ngeen andi nag lépp na ngeen yëg ne luñ fi soxlal te luñ fiy jëfandikoo la ngoonu tey rek bu ngeen ñu jëfandikoo ci loolu nag wane na ne da nga soxla moom ngeen andi lañ soxla moom ngeen andi dàkk nag la ca am solo mooy boo diiree nga jam waaye lii nag bu fekkee da ngeen doon diir jam ngeen ndax yii ngeen andi amu ci luñ dul jëfandikoo ci bis bi ndox mi danañ ko jëfandikoo tàndarma danañ ko jëfandikoo su su yee danañ ko jëfandikoo ba ci yii nga xam ne mooy nit nettoyer sax danañ ko danañ ko jëfandikoo ci ci ci ci bis bi. loolu nag mooy li am solo mooy euh, wut la ngay def mu dëppoo ak lañ soxla dëppoo it ak fañ ko soxla te yooyu yëpp daje ci kon nag yal na yàlla nangul leen Sëñ Tuubaa nangul leen te ful ko dañ teewaat fi ay déwén yu bari wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.